naa ko mu toog ci màggal gii ak sëñ Muntaxa la njëkk nekk ñàkk xorma ci sëñ Muntaxa mooy naan ko sëñ bi boo tëddee nga nelaw waaw koo xam ne yow bu dul woon sëñ tubaat mat la bàyyi baa maam lu ci yoon say nelaw ba ak xalifa sëñ Tuubaa nooy waxeek moom naan ko tëddal nelaw mel na da nga koo fekk ci ñàkk nelaw koo xam ne moom moo maanaam lam aar ak lam yilif ak lam man ak la lam lam tiim yow tiimoo ko xamoo ko yow fa fanaanoo fu dul sa sa sa ronlal gii sa xamoo lu ciy xew nga naan sëñ bi tëddal te nelaw maanaam yooyu ay ay wax la yoo xam ne xaw ma da koo rëcc xaw waaye loolu moom kenn du waxee ak noonu sëñ tubaa sëñ tubaa booy wax ak moom da nga kilifa yëpp loolu la noonu la demee li ci des it mooy naan ko màggal gii dafa am ñu ko bëggoon a yàq nga xam ne maanaam dañuy indi nangami escadron ngir ñu aar màggal gi màggal gi ba ko sëñ tubaa di woote booba Sénégal amut bay am arme màggal gee mag gendarmerie mag police mag maami Moussa Fall mag Moussa faal mag ma mag sama maam man ba ñuy màggal tubaa armée fetal amut Sénégal amut amut amutuk fetal amut amut lu koy aar fa fa màggal jóge ak bañ ko dalee màggal ak tey ku koy defar la ñuy wax murit yëpp nuñ defaree màggal la ñuy wax ak nuñ ko waajee waaye nuñ yàqee màggal nit musu koo xalaat ba di ko jëfee moom dafa waroon a wax ne rek damaa am président boo xam ne nit ñi bëggatuñ ko jëm si na Touba ñeenti escadron ko daan aar léegi nag bu ma amoon fanweeri escadron sama xel du dal kon indi naa fi oto yu bari ñu lu indi oto yi mu bëgg ne màggal gi lay bañ ñu yàq ko fekk déedéet moom Macky Sall la doon bañ ñu yàqal ko. léegi nag màggalu Touba bu dee dañ ko yemaleeg mitin boo xam ne maanaam bu escadron yi ñëwul ñu yàq màggal gi loolu ci seen xel la nekk waaye nekkul ci xoli murid yi nekkul ci nekkul ci lii bi bu dee itam dañoo jàpp ne xalifa sëñ tubaa wala xalifa yii ay leader politique lañ yoo xam ne dañoo am ay opposants yu taxaw pour salteen leen loolu ñoom la nekk ci seen bopp mais nekkul ci bopp sénégalais yi Sénégal gu bees googu ñuy wax ñoom ci seen biir bopp yi lañ ko def parce que fii ku nit kuy xalaat a yàq màggal ak Tuubaa amut màggal goo xam ne ba muy am yow amoo sa poste gendarmerie boobu amut nga bëgg fee naw sa bopp ba yëkkati sa bopp ba naan maay aar màggal gi ba kenn du ko yàq yow yaa xamul luy yàqoo ak waaye ba nga ko xalaatee yow nga yàqu woon waaw. man gis naa itam bu yàggut même Moussa Fall mi gis naa ko mu toog ak sañ Bay si Mansour naan ko wax ju ñaaw ji kilifa diine goo xam ne demut ci Facebook bi demut ci YouTube bi demut ci télé yi. buñ ko fa waxoon lu ñaawit nga tuxal wax ja ba indil ko ko ba cib saalam naan ko wax ju ñaaw jiñ lay wax ka wax waxut ka jottalee wax ñii saaga sëriñ bi yaa gën a yeb sëriñ bi fop yow mi ñëw naan ko ñu ngi lay wax lu bon ndax am na ñeneen ñu koy wax lu baax te waxoo ko ko yooyu yëpp daf cee nekk kon nanu joxaat orma sunu kilifa diine yi nun nag ay murit lañ boo gisee lii ma def ci ma intérêt sama ma di ko tontu ay murit lañ yoo xam ne sëñ Tuubaa lañ gëm ba noppi gëm Ousmane Sonko di ànd ak moom.